asalaamaaleykum waaw kon ni ko soxna si waxee rek macha allah sëñ Abdou Al Amin Al xalifa moom eh, loo ci wax rek bàyyi li ci des eh, ndax macha allah dafa nekkoon koo xam ne ku jamono mii noonu la ndax bi ñu ndaw ba léegi tout le temps mi ngi ci seen bi mi ngi ci diine bi mi ngi ci xadara bi mais également mi ngi ci engagement am sans faille. ci doomu aadama yi ci jullit yi ni dul jullit ci action sociale action humanitaire nekk régulateur sociale bu mag a mag a mag a mag mag nekk ku yàgg a tette jeunesse bi discours am tout le temps daf koy orienté ci jeunesse bi di ko orienté également ci héritage culturel ak religieux bi nga xamante ne jeunes yi moom lañu ñu war a téye xam li nga xam ne moo leen di xaar saa yu ñu musaan recevoir ñu nekk séance de travail loolu la ñuy wax ndaf ñëw conscientiser ne ñu xam leen ne léegi yéenay magu xadara bi ba ba ñuy mujj giseek moom loolu la ñuy wax ne yéenay magu xadara bi na ngeen téye seen responsabilité bu baax a baax am na ñu yaakaar ci ndaw mi. du koo xam ne régulateur social la woon di koo xamante ne tamit unificateur la woon l'islam bi yëpp mu yàgg ci œuvre lu ne mais également famille El Hadj Malick Sy ak monde tidiane yaa yëpp parce que ni meloon Sénégal noonu la meloon Fès lu ci bëri ay décisions yi ñu daa jël dañ ko daa consulter doon fa dem am fa taxawaay bu mat sëkk macha allah. suñu wayjur la suñu sëriñ la suñu kilifa la kenn doyalul woon nag ci moom waaye nag yàlla moom bu ñëwee rek ñëw na ndax sëgam yonent bi salaahu salaam moo fi jóge kon kenn du fi des kon dañ koy sante yàlla rek te di ko ñaanal yàlla ko yàlla yërëm yàlla na ko yàlla xare ci àjjana yu gën a kawe yàlla na yàlla tar ci barkeem waaye également mu nekk modèle boo xam ne dañu war a roy ci moom surtout engagement am sans faille ak nangu kilifteefam ndax ku ne tarbiyul na la ku ne jox na la sa cër waajur ya maam ya mag ya ba cëram jot mu toog donte ne lu mu toog yàggul waaye macha mission matal na ko mission accomplie macha kon dañuy sant yàlla di ko damoo macha allah di ñaan yàlla yàlla bu ko cat jiitu rakkam yi nga xam ne bàyyi na leen fii yàlla na yàlla guddal seen fan yàlla na leen dëddoo jàmm macha allah li nga xamante ne moom la yoroon muy flambeau bi kilifaam yeeg rakk yi fi topp yépp war ko téye yàlla na yan bi oyof seen kaw yàlla na leen yàlla jàppale bu baax a baax a baax a baax ba ñu yeggale lépp li nga xamante ne mëbatoon na ko ci diine gi ak ci réew mi yàlla na leen ko yàlla oyofalal mën loolu leen ko ba ñu yeggale ko jàmm ak salaam asalaamualeykum wa rahmatullah